aywa niñ leen ko doon waxee euh, jàngat bi tey jile loyer bi lañ ko jagleel ak jafe-jafe yi ngeen fi dégg euh, malgré loi yi nga xamante ni tëral nañ ko fi ministre du commerce dégg nañ ko sax mu ne bu kenn joxee ci lu yées ñaari weer euh, ko li nga xam ne moo di caution ndax ab loi bu fi nekkoon ci atum 2000 1977 ba léegi moom moo ko taxawal ñu ngi naan sax dañuy taxawal benn observatoire boo xam ne loolu képp moom moo ko tax a jóg waaye fileeg ñuy ciy def ay jàngat di ci wut ay saafara ci yëngatu moo xam ay agent lañu moo xam ay courtier lañu ñoom ñëpp wax nañu euh, seeni i euh, tawat wala bokk li ñu bëgg euh, ci taxaw seetlu bu Maimouna Ndiaye ak Younous Diatta al xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllum courtage bés bu yàlla sàkk client yi dañuy ñëw ci moom ñii apartement lañu bëgg ñële bureau ñi ca des kërum lëmm lii moo tax lu ci bari ñuy laaj ñetti weer loolu nag mu ne am na fu mu tegu. wax ji wax ji aussi foog ñu wax ko li waral wax ji yëpp mooy location dafa cher Dakar. léegi kooku question la lu tax location cher cher Dakar je crois que loolu la ñu war a résoudre nga ay un mois deux mois trois mois loolu dëggantaan du du régler problème nit ko fay un mois de mois trois mois nit mun na ñëw ñun dañ ko gis moom immobilier nit ñëw ne la dama dama lay fay un an laajoo ko ko de day ñëw ne la dama lay dama lay fay un an gis naa produit doy na ma dama lay fay un an donc problème nekkul foofu mooy. lan mooy solution pour location wàññeeku Dakar. agent immobilier bi mel ni ku koy feelu. ñii demande ñetti weer nag dañ ko tënk ci lu leer dama koy waxat mooy avance caution ak commission mais borom kër en matière de location warul mën demande ñetti weer avance la war a demandé ak caution le mois d' avance et puis à l' avance da nga koy fay sa kóotën xam nga lu waral loolu ñu bañ nga ak célibataire boo xam dañoo def matlam ci biir. mu toog ñaar weer fayu la xëy rek nga ñëw di fekk bu bagage am la weeroon fayu amul garantie moo la ñu demandé garantie boobu noonu dafa am solo avance bi aussi dafa am solo mais troisième mois bi kooku c'est la prestation. jëflante gi léegi léeg nag mu jur coow boo demee ci kuréel gi fi taxawal ak ak yeleefu way jëfandiku yi di wuyoo ci turu ASCOSEN ci xayma bés bu jot lu toll ci fukki nit daañu fa ñëw di kalaame kileen leen loué. bari na ci ñi nga xam ne ñooy agent immobilier wala waa ay agence immobilière wala ay courtier yoo xam ne dañuy joxe ay ay conseils yoo xam ne teguñ ko ci li nga xam ne moom la yoon wax dañ koy jox seeni bailleur am na tam bailleur yoo xam ne ñoom ci seen bopp ñooy jël seen initiative wax ay prix wax agent bi wala agence immobilière bi wala courtier bi ne ko nangam laa bugg ci kër gi. jafe-jafe yu tar ci wàllum luyaas gi mu dem ba andi pëccëxoo. boobu ba léegi ñu ngi xoole gars yi di laaj 4 mois di laaj 6 mois te loi bi amoon na donc li manqué mooy loo xam ne boo jéggatee loi bi mu wañ sa loxo nga bañ koo jéggat loolu nag lañ war a dem vers ça te defe naa ne observatoire bi benn pas la ci parce que loi yi ñuy rappelé yëpp amoon na ba pare. nan la ñuy def bañ ñu appliquer ko sur le terrain loolu moom moo jar a xool. lii moo tax nguur gi fan ñi daal di génnewaat ab bataaxal di fàttali ñaari weer képp lañu ñu war a fay. ñàkk xam la wala lu mu doon. da ngay gis ñu yónnee ay sommation maanaam yónnee nit huissier euh, ci kaw ne respecté wu lii respecté wu lii te xamuñ ne yoon ci boppam dafa am nu mu wax ne noonu la war a demee te ñu ci bari ci ñoom duñ ko respecté am na ci tamit ñoo xam ni. xamuñ sax nan la ñuy calculer surface corrigée yi ak xamuñ sax fana la war a dem fan lañ war a dem pour def surface corrigée boo xam ne valable na. ñoom ñi ñëpp di am yaakaar ci kuréel gi fi nguur gi nar a samp ngir mu jubbanti. depuis 1966 77 81 ba 2014 yooyu yëpp li tax mu lajj mooy population yi nga xam ne jàngul boo naan leen décret loi surface corrigée duñ ko xam bu ñu amee problème rek dañuy dem. bàyyi borom kër gi mu def lu ko neex wala borom kër gi gis na locataire bi mu koy sonal mu bàyyi ko mu génn mu bàyyi noonu mais léegi bu fekkee teg nañ kuréel goo xam ne dafay saytu problème bi nga xam ne moom la locataire bi am saytu problème yi nga xam ne moom la bailleur yi am defe naa ne début de solution la. kuréel googu ñu ngi bind texte yi pour que rapidement ñu mun koo taxawal. su ko defee ku am jafe-jafe ak sa bailleur wala ku am jafe-jafe ak sa locataire soo ñëwee foofu foofu lañ koy lijjantee ci nu gën a gaaw au lieu que ñi ñi di dem ay tribunal laata loolu nag ku nekk di indi sa xalaat ci li ñu jàpp nii mën naa doon saafara. su ñëpp defoon surface corrigée le problème du loyer serait réglé à Dakar parce que surface corrigée mooy prix technique bu lay permettre yow nga xam sa kër loo koy loué expert immobilier moo koy def defal la un document juridique. buy fixé waaye bi nii yow kër gi nga tabax appartement tant que warul solution bi mooy ñu am ay structures de proximité décentraliser le maximum possible dans les communes ay euh, observatoire yoo xam ne dinañ am pouvoir de décision def des moyens de coercition yoo xam ne day obligé borom kër gi obligé locataire bi ñoom ñëpp ñu mën di ñëw foofu enregistrer contrat yi de tele sort que ku ci am problème foofu ngay dellu si waat ñu mën ko régler rapidement. Euh, gis nga location nit daf koy def malgré lui moi je peux comprendre un étranger qui qui qui débarque qui prend un loc euh, une location mu nga jël benn benn benn kenn ku jóge extérieur ñëw jël benn appartement dëkkee ko parce que dafay def benn ñaar ñetti at. mais ku dëkkee Dakar ñàkk pexe moo tax ngay luwe ñàkk pexe boobu nag lañu ñu war teg ci bi ñu ne lan mooy doon solution ba ki nga xam ne bureaucrate la salaire taxu ko demee nag nag la ñuy def ba mu am ba mu jot am këru boppam. ah logements sociaux yi ngay wax. solution. Euh, comme ni ngeen ko gisee acteur yi ku ci nekk euh, joxe na sa xalaat ci luyaas euh, bi nga xam ne cher na ñu doon nii ñu laajte ñetti weeru position ba ci ñeent jafe-jafe yooyu nga xam ne jafe-jafe yu la tar la ba njiitu réew mi ci boppam laaj ñu xoolaat texte yi. fi lekk nag ay fan maanaam ci njeexitalu weeru décembre bi am nañ yaakaar ni solution dina am ci euh, wàllu luyaas bi euh, borom kër yi nga xam ni dañoo luwe euh, mënuñoo nelaw fi mu nii ndax fay bu méttee métti métti am nañ njort ni saafara dina am ci texte yooyu buñ ci noppee. jërëjëf may mun a Ndiaye ci gëstu bu am solo boobu boobule mu nekk lu yitteel ñëpp du ñàkk suñu gan sax dina ci waxtaan tamit muy euh, Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké nekk euh, vice président commission des lois ci assemblée nationale euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dalal jàmm.